léegi ñoom mais témoignage booy yi gars yi def noonu. Hmm. ci affaire torture yeeg yooyu. Hmm. mais Karim loolu dañ koy bàyyi noonu mu jàll. grand est-ce que xam ni 2013. ah bi ñu dama la wax lu fi yàgg. si si defoon nga ko. les jeunes de Koloban ah. lii dama ko waxoon. si si daat maane bi ñu xam nga bi conseil concerné validé candidature Abdoulaye Wade. Euh, après foule bi nekkoon Obélix dañ doon fi bi ñu nee validé nañ candidature foule bi commencé bouger police bi chargé songu leen. bi ñu chargé songu leen oto euh, après.

dañ dem ba wax ni boy bi ci sexam tek nañ ci gañ nañ ko ci ba mu pour dag ak paak ba mu pour pour mu wax mok ñana def affaire bi te boy bi il était innocent lan la defon lan mo ron kiyam mom lan moko lan la lan la togné moy limu dekk ko loban obélix buñ fay dajé xamul nga ko bana fay dajé ñepp fay dajé merci ñu ñew japp boy bi dañ ko douru dour ba xam la tax ñu euh, euh, juge d'instruction da ko doon deglu xol ko ne mais ki mu ngi dé mom mo def jox ordonnance ni ko yobu médecin mu xol ko tellement boy mënu won tok di lox ndax doori metti booy bi ko torturé ba doon jékki-jékki rek ne Pape Alé rek policier dem jëli Pape Alé mu jékki-jékki ne Karim ñu dem jëli Karim noonu la waxee seen waa ko ñu jàpp ci huit personnes ñi mu xam rek ñi mu màgg ñu tëj nañ leen trois ans ci kaso bi grand est-ce que xam nga loolu. Mm, donc lii du tey. Chimère bu bu président UMS bi. Uh-huh. moo leen tëjoon. mais man loolu wax naa ko bi expertise médicale gis nga Chimère Diouf bi mu génnee nii di attaqué Sonko man def naa live waxoo ko. Mm. ma ne ko yow man dama taxaw

César Maye dafa wax Sèye Diop rek koy wër moom xamul lu xew da doon dox di jaay xamul ñu ni ko ci man mais lu xew mo ne man j'étais même pas là-bas tëj nañ ko ñetti at dóor lee na dóorul César Maye ba léegi dafa fébar boobu ndax dóor yu metti enquête yoy terewul ci lañ leen tej man gën ma génne prison wax naa ko loolu mo continuer rek hmm. te police sénégalaise yag na def ay torture du tey te il faut voir le courage de le dire te yooyu tay moy loolu fan la muju Macky Sall buñ mu ci pouvoir bi rek xam nga loolu ab laa at loolu bi mu ci pouvoir bi rek détenu politique la ñëk tànk xam la wan leen ginnaaw faalewu leen sax loolu mu indi woon suñu problème ak moom. ma ne ko nag doo gouverner nii Sénégal moom. ñu xeex ñi dee ba ba nga toog ci pouvoir bi nga ñëw bëgg a tànqamul di suñu politique non loolu duñ ko nangu lii moo waroon na sama première station man. Mhm. ma dem Colobane dem ma dem euh, Colobane jógee Colobane ma dem buntu prison Rebeuss taxaw fa def fa live presse bi fekk ma fa ci lañ ma dogaale jàpp ma tëj ma foofu boobu mooy suñu premier mandat mandat dépôt lo mës continuer xeex la quoi. non lu ñu góom la grand injustice la ñuy parce que dañu xamni ne gis nga justice fu mu amul musiba am fa grand yalla na jàmm am Sénégal ba gisee dëkk yi guerre ñi am problème yi am ci dëkk yi nga xamni yalla faut une il faut justice il faut ñu taxaw si il faut ñu am ku naan déedéet. Mm-hmm. parce que benn moment ñom pouvoir bi dañ dem ba ne kenn dootul waxati. kenn dootul nooyeeti kenn dootul doxati xam nga ñu mel ni comme yow rek dëgër bopp journaliste yi. comme suñu sama genre ñoo mën a rek insister wan leen ni nañ démystifier prison yi man yàgg naa ko wax. il faut ñu démysti démystifier prison yi wan leen ni ñun du ñu faale prison du ñu tere exprimer wu du tere la ñu xeexoon ak i démocratique ba ñu amoon mag du Macky Sall moo ñu koy tere dañ ko am lu ñu xeex la lu Sénégal xeex la Sénégal dafa dañu yàgg xeex boobu moom ñëwagul. ñu xeex ba foog ko mu ñëwee. non li ngeen xeex dama koy delloo à zéro ñu ne ko du fi amee léegi nag ñaar mooy am du fi amee ñu nekk ci kaso yi wala ci bàmmeel mais wala ñu nekk ci biti mu fi am ndax man ñun moom boo ñu bàyyee da ngay dégg ci kaso bi laay toog dégg Pape Alé Niang def na live lii la wax lii la wax ma ne kii sama grand bi nañ ko jàppaat kenn mënuñu teree wax mm-hmm. da ngay sonn mënuñu teree wax te keneen ku ñëwaat bëgg def nii man wér na mu wóor ni di nga def la même chose ñu ah. defaat parce que ñun Sénégal lañ fi nekkal mm-hmm. bëgg ilal ëbët homme politique bu mës a falu da ngay teg Sénégal ci yoon ñu ànd ak yow ci njub mënoo ko ñu taxawee à côté rek wax la dëgg la preuve même bi ngay nekkee opposition dañ lay wax dëgg mm-hmm. kon loo foofu bi Faut ñu donc vraiment bokk na si lu may gën a expliquer torture yeeg yeeg yooyu yëpp seen peuple sénégalais.